asalaamaaleykum askan wi ñu bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di sunugal 24 point mbokk yi sunugal 24 point net di mu koy safoo di defee saa su ne seen jotaay bu am solo bi di seen jotaay xale ma bu ñëw mbokk yi xale bu ñëw tey dalal fas yéene fee dalal sëriñ Ahmadou Mbacké Cissé mbokk yi bawoo nag te diwaanu Tëngéej ci Rufisque quartier sant yàlla mbokk yi balaa sol dara dañ koy ba daal di bàyyi rek mu nante askan wi euh, sëriñ Ahmadou wa rahmatullah sëñ ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yi rawatina waa Tëngéej. jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Mbacké Cissé euh, tey bu ma la doon laaj tey kan mooy sëriñ Ahmadou euh, Mbacké Cissé ak lii nga xam tey dugg nañ koo xam. waaw ñu nuyuwaat beneen yoon auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waaw li ñu laaj nag dinañ ci sawar a tontu lool waaw ñun nag ñu ngi dëkk fi ñuy wax Saalum foo mooy suñu cosaan te ku ne Saalum xam ne borom xam-xam yaa fa nekk jàngee dëkk bi ñuy wax Ndofane Lagem ci kër Serigne yoon Cissé yàlla na ko yàlla may wér ak wérle may ko gudd fan defal ko njabootam. lépp lu ñu jàng ci alxuraan lépp lu ñu jàng ci xam-xam lu ñu gëstu lu si baree bari moom moo ñu ko jox ci moom lañ ko xamee waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ jëlee ci moom. lépp lu ñuy def daal moom foofu lañ ko jëlee. alhamdulilah euh, sëñ bi daal di ñëw ci wàllu ñaan yàlla bi ñuy waxee noonu ci bunt boobu tam mu nekk loo xamante ni euh, sa domaine la. Mhm. wàllu ñaan yàlla dañuy gis ñu bëree bëri ñoo xam ni dañoo découragé ci wàllu ñaan yàlla dañu dem ba découragé. lu ko mhm. waral mooy ñandu nañ ba sonn. Mhm. du suñu résultat. xam ñu ndax ka leen ñaanal daf leen a jigul. wa illaa tamit kay ñaan yoon wa mu waroon jaar dafa jaar. Euh, lu waral li ni mel parfois doomu aadama di ñaan waaye gis moo xam mhm. waaw ñu wax si wàllu ñaan ñaan dafa am yoon boo wàccee yoon mun nga faa yàgg di ñaan euh, te ñaan ko du nangu ñaan bu fekkee ne xamoo xam-xamu ilmu nujuum sa ñaan mun naa bañ a gaaw a nangu ndaxte daf ci am ci bés yi am ci heure yi nga xam ne heure yooyu dafay leer pour nga ñaan ci lu baax mu sotti. bu fekkee ne nag xamoo heure yooyu noonu nga xam ne heure yu leer lañu wala euh, nga xam ñàkk xam heure yu lëndëm yi day waral heure yu lëndëm yi boo si ñaan da ngay ñaan fii ba suba wala fii ba yomal xiyam li ngay ñaan du nangu du sotti mais bu fekkee xam nga heure yu leer yi nag da ngay ñaan léegi mu sotti léegi. Mhm. Euh, loolu lu euh, xam-xam waaw loolu am na loolu am na tey jii sëriñ yu bëree ngi ñaan xamuñu sax heure yi xam ne heure yu lëndëm la heure yu leer la euh, loolu da koy jàng xam-xam la rek dañ koy jàng boo ko jàng xam ko mais nag ñu ko am bariwul. ñu ko am. waaw ñu ko am mais li ma jaaxal mooy bés bu nekk. naka euh, ni bidéo ba def féete mhm. tey mu leer mhm. tey bu ñu nee tey alxamis mhm. alxamis tey mën naa leer alxamis bi di ñëw mën naa lëndam ndax loolu lu la waaw lu wér a wér la mais nga ko mën a ràññee ah jàng rek xam-xam rek loolu nekk loo xam ne dañ koy toog fii di ko toj parce que ku ko bëgg a xam tamit da ngay dem nga jàng ko waaye en tout cas ñun xam nañ ko xam nañ heure yi ñuy ñaan xam nañ heure yi nga xam ne waruñ cee ñaan loolu ngi daanu ci ñaan yàlla waaw la plupart kon dañoo xamul heure yi loolu la loolu moo leen sonal ñu si baree bari ñu ngi ñaan tey wala ñu ngi ñaan lu dem naa ci sëriñ bi dem naa ci sëriñ bële tey jii nii ma jox la benn exemple rek tey boo jugoon 4 heures du matin nga ne dem ci banque ba récupérer xaalis di nga fa fekk xaalis. ah bu fekkee da nga waxuma carte gab boo yorul carte gab nooy def carte gab mooy ki xam yoon bi. waaw d'accord boo yorul carte nooy def. ah moom kay waxuma man kay carte bu fi laa ah, doo récupérer de. ndaxte dafa am heure boo xam ne heure boobu lañuy ubbi. heure boobu boo demee boo demee da nga ko fekk da nga ko fekk xaalis. waaw xanaa yow carte gam nga yor yow. waaw ah du ma ne du ne yor ma ko de waaye jege naa ko de. kon alhamdulilah. waaw jërëjëf euh, yi di euh, yàgg nañu tam ni ñu koy waxee bëgg jotaay bi. Hmm. Euh, waaye li ko bari li ko waral li ci bari bari xëy ay xat-xat waral li ni mel. Hmm. ba na tey. Euh, xëy na tey yàlla sa borom bi tey dogal li ni mel. Mhm. ñu di ko ci santaat bu baax a baax. Mhm. Euh, sëñ bi ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne muy wàllu listixaar. Mhm. listixaar tamit nekk na loo xam ne tey maa ngi dem ak yow ci domaine yoo xam ne dafa xaw a. nit ñi dañ ko jàppee lu yomb mais lu xaw a sensible lu xaw a doy waar la. Euh, listixaar. bëggoon nañ ko xam da gis koo xam ne ni ma koy faral di waxee wax waxaat du bari wax. que moom dafay listixaar. wala listixaar ñëpp mën nañ ko defal seen bopp. Mm-hmm. mais yéen bu fekkee ñëpp ko mën a defal seen bopp te ñi leen woote am jafe-jafe wàllum listixaar mm-hmm. lu tee ngeen jàngal leen ñu mën a defal listixaar seen bopp ah waaw xam nga ñëpp moom mënuñoo nekk ci wàllu sëriñ wala ñëpp tamit mënuñoo nekk di jàng jàng wàllu listixaar ñii dañ koy xam ñii duñ ko xam ñi nga xam di ko defal ñi nga xam ne xamuñu ah waaw foog ñu codé ko parce que dañ cee sonn bañ koy am dañ cee son ba ñu amee juróom-ñaari at ba léegi ñu ngi si daara yi di jàng kon du ñu ñëw lañ jàngoon ñëw di ko pasar pasare loolu mënta nekk dañ cee sonn ba am ko kon képp koo xam ne am nga soxla xaar boo ñëwee dinañ la defal xaar waaye nag nekkul ne dañ la koy jàngal pour nga xam ko. d'accord ah, bis boo ko xamee dootoo ñëw. d'accord mu am ci njariñ yi dama waaw sarax yi sarax yi li ma la wax léegi si wàllu xel mu joom rek lépp mu ngi basé wu si heure yi nga sarax dafa am heure bu ñu koy génnee même ba ci bind alxuraan bi ngay bind. pour jox ko nit ki. war nga xool heure bi heure bu leer la wala heure bu lëndëm la bu dee heure bu lëndëm la bul bind bu dee bu leer la bindal bu dee sarax la heure bu leer la génneeloo ko sarax heure bu leer bi tey da ngay gis nit am xaalis rek nga ne ko génneel sarax rek mu dem rek génne sarax boo ko xooloolul heure bi leer na wala lëndëm na bu génn day génne sarax boo bëgg a dee waaye dara du feeñ. du am résultat du am résultat fenn. mais maanaam heure yi heure yi moom foog foog foog nga xam heure yu leer yi ak heure yu lëndëm yi nga mun see génneeloo nit ki sarax wala nga mun ko see jox cangat wala nga mun ko see binduloo loolu kese mooy tax li nga xam ne mooy ñaan. Ah. daal di nangu. listixaar da nga gis ñoo xam ne listixaar ñooy jël buntu li nga xam ne moo di yoonu listixaar mhm. euh, ak xalwa mhm. mhm. jaxase mélangé li ko waral mooy parfois nit ki dugaloo nit ki xalwa mu defal ko listixaar mais ñaar yooyu est-ce que xawul wute parfois am na ñoo xam ne dañ ci waaw am xam nga loolu loo gis rek ñàkk xam la maanaam xalwa ak listixaar bokkul xalwa xalwa ak listixaar bokkul listixaar mooy nga xoolal nit ki seetal ko ay jafe-jafeem xoolal ko ay mbiram wax na ko lii mooy sa mbir lii mooy sa sarax. mais est-ce que parfois du bëgg listixaar euh, euh, ko mhm. ah, moo gën a yomb. non non balaa ngay listixaar balaa ngay xëlwa sax dangay ngay listixaar ba pare. ba noppi ngay dugg da ngay xam rafet na wala rafetul am na ñuy dugg xëlwa jaaree fa faatu de. faatu. ah ñàkk a xam ak ñàkk a jàng ak ñàkk am wéeruwaay. kon daal xalwa ndigal la lépp loo ciy def te amoo ci ndigal du barke te tamit danaay dégg nit ñi di wax naan alxuraan gaawul alxuraan nee nañu gaawul. Ah, ah, dama ne luy gaaw suñu borom liy gaaw alxuraan la gën a gaaw xam nga lu tax nañuy jëfandikoo alxuraan moo tax alxuraan du leen wuyu si. waaw sunguf ak reen ak yooyu la na waaw waaw ah. foog débat boobu am loolu koy saa yoo ko namee rek ñun pare nañ pour waxtaan ci. waaw waaye nag ni ma lay mënta xamal mooy. alxuraan ci boppam. nit ñee ko joxatul gëdd joxuñu ko ak moo tax dangay ngay boo bëgg a dee li nga ci bëgg doo ko am. am na solo <laughs> yaakaar naa loolu am na solo. te yàlla moo ne wa nunazzilu min alxuraani maa wa shifaun wa rahmatul lil muminina shifaun shifaun wa rahmatul kon bépp jàngoro bu doomu aadama yor boo ñëwee ci alxuraan mu sifaay ko ba mu wér kakk ak jàngoro bu mu munti doon nag. ci domaine nga xam ko. Ah, ci kaw nga xam ko. lépp lépp mu ngi aju ci xam rek. d'accord d'accord ah. euh, léegi xelwa yow xelwa. Mhm. gis nañ lu euh, nga xam ne am na fi. Mhm. Euh, léegi xelwa ndax dafa am ay zone yu ñu ko war a duggee. Mhm. ak zone yu ñu ko war a duggee comme ni ngay waxee bés bu leeree ñu ne bi ak tamit surtout nag.

mais amoo droit mun nañu yebal mun nañu yebal Saint-Louis mun nañu yebal Kaolack mun nañu yebal Louga mun nañu yebal Touba fu mu ñu yebal la ñu la. waaw. xam-xam la du du gëstu bopp xam-xam. Euh, euh, am na weer am na ñetti fan sax am na benn fan ça dépend ci li ngay liggéey rek. kan mooy yelloo xalwa. ah xalwa de ku koy yelloo mooy ki nga xam ne bëgg na ay mbiram taxaw. bëgg nañu ñu samp ko bëgg na am dara ci àddunaam kooku mooy yelloo xalwa waaw jërëjëf sëriñ Ahmadou Mbacke si seen mbokk yi di leen fàtt rek ni ba wacca diwaanu Tëngéej di Rufisque quartier sant yàlla mu mel ni numéro téléphone yaa ngi noonu affiché ci barre écran bi 77 272 89 20 wala beneen numéro bi 77 727 47 12 mbokk yi mu mel ni ba léegi rek ñuy wéy ci jotaay xale nga bu ñëw ñu daal di ci faru rab coro rab mhm. dañ koy <laughs> mu nekk loo xam ni euh, lu doy waar sonal askan bi euh, loolu moom li mu siy junj du bari damay joxe ñaari exemple yi muy manifesté woo ci nit rek. góor goo gis muy fooyee awraam dafa yor faru rab. du tayef de ñu yor faru rab dafa bari déglu ma rek. góor goo gis muy fooyee awraam. da gis ko am jabar sax di fooyee awraam dafa am faru rab dafa am coro rab ku góor ki. jigéen boo ci gis muy def noonu moom tamit dafa yar far rab te tamit jigéen ñi des fois ñoom ñooy ñoom ñooy provoquer rab yi ba nga xam ne rab yi dañ leen di dugg c'est parce que seen solin waaw noonu la demee. léegi waaw ci lu mu gën a gaawee kay dañ koy saafara moom dimmi dañ koy. <laughs> <laughs> Ah, waaw. da nga woyofal mbir mi. xam-xam la rek. da xam-xam la rek. xam-xam la rek ah, waaw man ma ne la fukki fan ak benn ñu tàqali kook yow fukki fan ak benn laa la wax fukki fukki fan ak benn ñu jëflante ko mu taxali kook yow ba set wit ak nu mu munti mel ak nu mu la mën a fekkee bu mu munti doon na moom kay. mais dafa am xeet yu dëgër bopp. ma am na xeet yu dëgër bopp waaye ñaan rek dama la wax fii sànq ne la alxuraan lu mu munul dindi amut. ñun lépp lu ñuy liggéey ci alxuraan lañ koy liggéey. Euh, waaw loolu loolu la ñuy wax euh, problème mu tubay maanaam tey jii nii sëy yu bëree ngi tas looloo ko tas waaw moom tamit am nañ ci saafara ba nga xam ne boo ñëwee daal di nga wax alhamdulilah. d'accord allah. ñu ñëw am doom. waaw am mhm. mhm. euh, loolu la xam. waaw faju rek boobu moom da koy faj. mais ki taxaw lan moo war a taxaw. waaw ah, ki taxaw heure am moo jotagul am na ñoo xam ne seen heure moo jotagul waaye nag heure bi am na lu tax mu jot am na foo xam ne boo fa jaaree ak moom heure bi dina gaaw te jot te bu ñëwee dana am doom incha allah. d'accord mais xam nga lu koy wax rek saa su am na ñoo xam ni parfois danañ toog di seet yenn jotaay yi di ko seetaan. Mhm. Euh, tey ñu ne mais tey am na ñoo xam ne dañ naan la lu ñu wax rek ñu ne mën nañ ko. lu ñu mhm. wax ñu mhm. te bu fekkee beneen wàll bi boo nee bopp. d' accord ñu ne bopp la spécialiste boppam xam-xamam ci bopp la. ñii nopp ñii tànk. mais tey am na ñoo xam dañ naan la lu ñu wax rek ñu ne mën nañ ko. mais est ce que parfois. ñoom lu ñu mën a gëm mooy xëy na tey sëñ Ahmadou Mbacke Cissé tey côté xel rek la xam. wala ki néew kàtt rek la xam mun ndax munu cee yem. waaw dinaa koy dégg mais loolu loolu gàtt xam-xam la rek gàtt xel gàtt xam-xam rek laa ciy tontu xam-xam moom waaw gàtt xam-xam rek te parce que yàlla daf ñu may xel wala xadd karam naa bani aadama wa xamal naa fil bari wal war a saq bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiiri mimman xalaqnaa tafdiilan yàlla daf ñu jox xel teral ñu may ñu lépp loo xam ne moo nekk ci àdduna ñun ñu war koo jëfandikoo kon doomu aadama warul wutal boppam frontière ñu daal ñëw ci def-def ki nga xam ne def-def dafa ci moom muy wàllu liggéey. Mhm. côté Saalum dégg nañ moom wàllum. Mhm. écrasé liggéey moom. mel ni ñoo ko moomal seen bopp. waaw ñun ñun buñ ci yor mooy dinaa joxe tur bi sax ibtaalu kulli shahrin la. waaw ibtaalu kulli shahrin maanaam day toj bépp liggéey bu nekk ci doomu aadama ak lu mu danger danger. dañ la koy bindal nga sangoo ko taqalikoog li nga xam ne moo nekk ci yow. mooy waaw ba tey nañ ko codé rek. waaw xam naa loolu. waaw li <laughs> cat. cat moom li muy def ci doomu aadama dafa bari mun naa topp nit ba ci biir bàmmeelam xam lu tax ba ci biir bàmmeelam. tey waaw tey kilifa dina gaañu soxla yërmande yàlla. ñu ne nañ ko ñaanal am ay dof yoo xam ne xamuñu dara ndeysaan ne buñ ko ñaanal kii ajana la jëm ajana kooku moom du yàlla waaw ku mu neex la fay dugal kon cat dana topp ni ba ci bàmmeel léegi cat li muy def ci nit tey mun ngaa nekk yow mi tey sa jëmmi bopp nga dem ba ñëpp xam la ñëpp nga siw mel noo mel mel noo xam ne yaakaaroo ko woon sa àdduna nga jékki-jékki wàccaat la moo koy waral cat moo koy waral waaye nag liggéey ah, du liggéey cat la làmmañ ak bët. d'accord ak bët dafa dafa garaaw tey yow boo génnee sa kër liggéey ñaata bët ñoo lay topp ñaata bët ñoo lay topp ñaata làmmañ ñooy wax ci yow boo wàccee même chose nga ñëw rek tëdd. boo ñëwee war ngaa sangoo garabu sécurité. mais bañ sangu bi nag ku fi bañul sangu rek waaw ku fi bañul sangu rek ñu sang la ku fi bañul takk rek ñu takk la. looloo fi nekk rek la fi maam yi bokkoon ba tey mu ngi fi. kon yéen ñi la plupart yéen ñi xam yéen ngi ñaan kon balaa ngaa def jotaay bi ak fi nga xam ni moom la nekk fa. Euh, euh, ak fu mënta doon ndax loolu da koy faral di ñaan fenn foo xam ne bëgg na faa sax mhm. waaw loolu am na ay ñaan am na ay ñaan maanaam ki ñuy samp moom xalwa lañ koy dugal moom tamit. ci wàllu samp waaw samp moom latif la ñuy sampee ñun. latif latif. <laughs> fi latif la ñuy sampee. ak koo munti doon ci kaw suuf nag boo ñëwee ñu samp la ci latif. te fa ngay sax ba heure bu. la neex nga jugee fa. d'accord damay nopp. maanaam nag nopp nag ñu ngi koy defee ci ki nga xam ne dafa bëgg soxna. ki waaw xam nga caaxaankat yi dañoo bari. ki ku bëgg soxna. soxna soo bëgg pour takk ko soxna. soxna soo bëgg pour takk ko soxna laa wax de. boo ñëwee ñun noobal la ko képp ko bañoon dina nangu. da ne la képp ko bañoon dina nangu. Ah, Ah. ah waaw waaw moom mbir yi la rek. Ah. mbir yi la rek. <laughs> gaa gaa yi yëngu rek. d'accord uh-huh. uh-huh. ñu uh-huh, waaw waaw waaw dañ ciy ñaan dañ ciy ñaan moom tamit ñu ngi koy duggee ci xalwa wooba rek nit ku bëgg a tukki wala koo xam ne dafa bëgg ay kayit fam ne wala bëgg a fii nii pour dem loolu yëpp dañ ciy def ñaan. ci wàllu alxuraan. lépp lu ñuy def daal ñu ngi koy def ci alxuraan amul lenn lu tilim loo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo. Euh, waaw di nuyu mbokki senegal yëpp mbokki àdduna di nuyu di la nuyu di nuyu sa caméraman bi di nuyu ñu fi toog ñëpp di wax ne yàlla ñu yàlla defal tawfiix ak taysir jàppandal suñu mbir ci saahir ak ci baatin euh, alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf euh, sëriñ euh, Ahmadou Mbacké Cissé di ko santaat mbokk yi mu mel itam euh, di jégalu rek am na yi nga xam ne dañ koy waxee tam dañu ne ci travaux. Mhm. moo waral rek bruit boobu parfois ngeen di dégg muy def retour ci micro bi. di ko mhm. jégaluwaat bu baax ndax mhm. dañ koy waxee tam lépp rek ngir bëgg a yeesalaat. di santaat bu baax sëriñ Ahmadou Mbacké Cissé bàyyi ko ca diwaanu sant yàlla di ko santaat beneen yoon. di ñaan rek allah bu subhanahu wa taala doole dundal sa fan. amiin amiin amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin amiin amiin yaa rabbi incha allah amiin amiin amiin amiin amiin yaa rabbi numéro téléphone yi mu ngi noonu mbokk yi 77 la 272 89 20 wala beneen numéro bi 77. 727 47 12. du nuyu mboolem équipe technique. bu Sunugal 24 point net ci wàllu éclairage bi caméra bi montage bi moom Dóor waar l'infatigable. Mhm. ko beral cant ak ngërëm ci wàllu réalisation bi seen yoon bi topp ci wàllu présentation seen jotaay xale moom jëm ngeen doon ànd ak seen mbokk taalib Mouhamadou Lamine Mountakha. Mhm. yàlla nit ñi borom jàmm tey. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla yàlla saa borom bi doon li ñu defal jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin salaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah.